investir ko def ko tête de liste dama ne loolu rek dafa jar ñu voté contre pour sanctionner ko parce que yow mënoo ñoo def li ñuy def wax pare ñëw ne danga ñuy doggal yi lii man lii opération doggal yi. laa ko ci téléphone bi s'il te plaît. waaw ayca mhm. sama wax moo xaw a. moo xaw a métti. Mhm. te su may wax ci Macky Sall maman sama xol dafay jug. Mhm. parce que Macky Sall lépp lu ñu dal moom moo ñu ko yóbbee. mënoo ñoo def li ñuy def ba pare 12 ans. nga ne ñëw da nga ne yow après ci législative yi da ngay ñëw doggali ñu. man je me dis que euh, Pastef jarul sax muy campagne. parce que man coalition boo xamante ni turu Macky Sall da cee nekk wala image yu Macky Sall taxaw sama buntu kër naan danga may campagne ah non yabee wuñ ma noonu. parce que 12 ans munoo fee toog di jooy. pour lan Macky Sall lu jóge fi. élection présidentielle ñëw yàlla may ñu. sarax ñu koo xamante ni Ousmane Sonko lu tudd. mu leer ñu moom rek moo mënoon a jàkkaarloog Macky Sall ngir lan jëlee ñu ko fi. tey mu dem Ousmane Sonko ñëw ñu fal le président Bassirou Diomaye fay dès le premier tour à quatre pour cent. ñuy xalaat ni xëy na euh, député yi nga xamante ne à l'Assemblée nationale dinañ demee maturité gis nañ ni ñu doxalee ñoom ñoo poussé le président ngir mu daal di dissoudre l'Assemblée nationale. ñu dissoudre ko ba pare organiser ay élections anticipées yow Macky Sall nga ne dangaa ñëwaat pour nekk tête de liste. moo tax ma ne la moom ndax dafa yaakaar ni dañ koo namm wala ñun dañoo regretter choix bi ñu defoon wala quest dañoo voté contre et on l'assume te moom lii mu def yaakaar naa dafay gën a faciliter la tâche au Pastef kon dafa mel ni seen coalition bi amuñu chance percer ci législative Macky Sall tête ñoom dañu amul information wala Macky moom dafa xamul maanaam niveau bi sénégalais yi toll ak moom que bu ñu voté contre euh, Amadou Ba. Mhm. c'est vrai que la l'image wala la personne d'Amadou Ba. Mhm. xëy na mën na bañ a neex xëy na mën nga am say interprétation. Mhm. waaye rien que de savoir que Amadou Ba mii nit la koo xamante ni coalition bu muy diriger. Macky Sall moo ñu ko joxoñ rek dafay tax nga vote contre. loolu aussi ci la bokk léegi moom mu ñëw ne euh, xaaral ma dem teste waat sama gàllaaj wala xaaral ma dem waat doggaliwaat Sénégalais gën leen a tucc tuccal ndax su ma demee assemblée nationale bu ma demee toog maak samay ndaw jomaay fay Faye Ousmane ko bépp loi bu ñu fi andi ma taxaw ne du ci dal. Mhm. ah loolu lañ naree nar ñun. Mhm. looloo tax nag sànq sama xel dafa dem ci focus bi. Mhm. xam nga moo tax ma wax loolu bu ñu dof fii ñu nul n'est amnésique te damaa gis ni maanaam askanu Sénégal jël nañ seen avenir en main. ci ñaari fan yii. parce que dañoo décider ne. élection yii ñu dëgmal dañ koy jël def ko seen yëfu bopp choix bi nga xamante ni dañ koy jël dañ koy xalaat bu baax a baax a baax te kenn du leen ci divertir. te loolu dafa am solo. xool tey information yi ñuy véhiculer xool tey naka la ñuy waxee askan bi naka la ñuy waxee ndaw ñi. ba choix yi ñuy jël ci législative bi nekk choix boo xamante ni day amal njëriñ askanu Sénégal. donc loolu nekk na lu am solo. gis naa jeunes ci réseau sociaux yi noonu la ñuy doxee et c'est très bien. léegi nag yii yëpp. ay euh, recours bi ñu déposé contre Ousmane Sonko ni ngeen ko waxee yooyu yëpp ay diversion la rek. Mhm. diversion la boo xamante ni da bëgg a génne xëy na ci focus bu ñu nekk. Mhm. premièrement deuxièmement je de dis que le PASTEF doit se réjouir. Mhm. d'avoir euh, wala euh, de voir Macky Sall tête de liste. donc ci beneen coalition boobee ñuy woowee takku wàllu. ñu ne la yow Macky Sall ak ak ak Karim Wade borom note vocale yi. ñoom ñoo booloo. loolu rek dafa doy campagne. yaakaar naa ni ñii waa Pastef sax ñuy campagne. parce que ça les porte préjudice ci sama gis-gis. très bien Chomar su ñu gisee Macky Sall mu démissionné ci poste bi mu amoon foofu ca euh, Paris di wax ni peut-être euh, euh, vie politique bi moo ko laaj ba tey ñu koy xaar mu war a battre campagne ci législative yi loolu ban jàngat nga ci mën a def. en résumé mooy sortir par la porte et essayer de rentrer par la fenêtre. Mm. maintenant est-ce qu'il va réussir par par rentrer euh, dans, la fenêtre parce que euh, apparemment euh, moi bi mu defee Amadou Ba candidat Macky Sall dafa woote congrès jiite APR boobu temps Serigne moi je me suis la question lan moo tax Macky dem di jiite APR Wolof Njaay da naan kuy ñaane sa ndono sa deewin ñaaw donc il a voulu retenir l'appareil politique au cas su Amadou Ba jàlloon moom mu mun koo am cette légitimité. Mm-hmm. mën a téye mbir yi mën a am poroxndoolu ñëwaat. on avait même parlé de comme Poutine li mu doon def ko plan boobu jàll. Mm-hmm. léegi euh, APR li Madiambal Diagne wax. mënoo gouverner douze ans. Mm-hmm. ba pare am problème mu ku jiite sa donc les gens vont se question beneen bi li ko Macron nommé woon la dafa am ay fonctions yoo xam ni c'est des organisations internationales. organisation organisme yooyu boo ci nekkee mënul ànd ak de l'activité politique. Mhm. donc maintenant du point de vue de l'analyse. Mhm. est-ce que Macky Sall am na droit nekk sur les listes. Mhm. ou pas muy benn est-ce que dañu ko condamner. est-ce que yoon daf ko topp. on peut pas lui un candidat maintenant logique pour logique. bu fekkee ni sénégalais yi dañu dem ci élection nga indi sa mbër ñu sanctionné sa gouvernance yow nga ñëwaat comme si li xale bu jigéen bi wax comme si comme si ne rien fait mhm. on verra est-ce que ce serait logique six mois après que tu sortes par la porte après que tu veux entrer euh, par, par la fenêtre maintenant ça c'est aux Sénégalais de pouvoir le déterminer maintenant euh, Macky Sall il a son bilan et tu as raison sur son bilan on a eu des lots de morts sur son bilan il y eu sur la gouvernance sur son sur son bilan il y a eu la question de l'état de droit des libertés et cetera et cetera mais aussi am na côté boo xamante ne dina ko am aspect positif et ensuite il a un appareil politique parce que aux dernières élections mbërëm bi mu ngemb mu am 34 pour cent mmh. maintenant Amadou yéexi am na lu mu yóbbaale mmh. Abdoulaye Diouf Sarr bàyyi na am na keneen ku bàyyi léegi Macky qu'est-ce qu'il politiquement lu tax yi bëgg bokk ci ci game bi est-ce que c'est pas pour se protéger parce que yaa ngi dégg ñu naan war nañ ko mën a pour poursuivre ci haute trahison mais buñ la waree poursuivre ci haute trahison assemblée lay jaar pour mu jaar assemblée dafa am li mu député boo xamante ni su ko majorité amee lu mu bëgg traduire ci yow daf koy am est-ce que nekkul mu indi benn poste de résistance donc pour man euh, sur le plan politique euh, ça montre que bàyyiwul parce que contrairement ci li ñu xamoon ñun dans la tradition républicaine Senghor bi mu démissionné dafa bàyyi toute la vie politique effacé wu bàyyi son son son successeur mu mu déroulé mm-hmm. euh, à un donné quand on a vu Abdou Diouf avec l'alternance ay tout ce qui s'est passé Abdou Diouf kenn déggatu ko ci vie politique même parti socialiste bu ñu ko réclamé Abdou Diouf du du commenter sax lu jëm ci wàllu politique. Mm-hmm. c' est avec Ablaye Wade qu' on a vu que Ablaye avait fait son comeback nit ñi naan góor gi nam namoon nañ la. Mm-hmm. mais est ce que Macky namoon nañ ko ça c' est aussi la question. Ah, léegi nag ce qu' mooy fii ñu jëm ci élection yi. Mm-hmm. est ce que Macky dafa ñëw pour revanche beneen lecture bi ma ci am mooy élection présidentielle yi ci moom gu c' est un parce que man ci lu ma mës a wax laay laay laay sukkandiku. man ba damaa jàpp ba keroog yowmal xiyaam ci ngoon Macky daa bëggoon def troisième mandat maintenant à un moment donné il était dos au mhm. moo tax à six mois la génnee son poulain et puis jàppale ko sax ni mu ko waroon jàppale. Mhm. apparemment kooku daf ko wor wala dañoo woroo du dëgg mhm. mais élection présidentielle bi passé sooy ko Sonko moo ngemb Jomaay Macky moo ngemb Amadou Ba mbëru Sonko moo daan mbëru mbëru Macky les deux protagonistes ils n'étaient pas candidats Macky n'était pas candidat Sonko n'était pas candidat mm. mais dans cette élection on va avoir une confrontation directe entre Ousmane Sonko et Macky Sall ce que Macky avait refusé à la présidentielle mm. il va l'accepter cette fois-ci parce qu'il va en découdre avec Ousmane Sonko mm. maintenant c'est aux Sénégalais de de de de voir est-ce que dañ koy may porox ndoolu est-ce que dañ koy jox seconde chance wala est-ce que dañ koy nappaaje daan na ko sëñ bi doyal nañ sëkk si yow loolu nag électeurs yi ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci décidé. très bien on attend de voir ça Serigne ba tey ci Macky Sall mi ñu jàpp ni peut-être dina ñëw battre campagne ak det ak démission am ci post bi nga xamante ni am na ko laata sax euh, mandat am di jeex fi ci Sénégal. waa jàpp naa ni euh, maman c'est un choix stratégique te dafa jot ñu taxaw seetlu ci. Mhm. parce que boo xoolee le président Macky Sall fi mu jaar yëpp ak li mu occupé ci ay post de responsabilité nee nañu sax amul un homme politique dans l'histoire de notre pays ku mës a jaar ci trajectoire politique boobu. Mm. ba fi mu teeree mu nekk président de la république. Mm-hmm. maintenant mais ci ginnaaw nekk président de la république boobu. Mm-hmm. tey interrogation bi ñu war a posé wu mooy lan la jaral après son départ bi mu giitee réew mi lan war a jaral.